waxtu wu nekk ci foo mën ne ak bépp jumtuwaayu xarala boo mën a yor ñu gis ne itam ci wàllu communication mhm. dégg ngeen woote bi nga xam ne sëñ Atou Diagne di euh, président comité directeur bi woote na ko am na lëkkaloo yoo xamante ni ñi ngi koy am suñu diggante mhm. ak yeneen télévision yi mhm. euh, dem na seeti ki nga xamante ni mooy euh, Youssou Ndour di kilifa groupe Futurs Médias dem na seeti euh, Sidi Lamine Niass mhm. mi kilifa groupe Walfadjri am na euh, ku mel ni euh, sëñ Aline Thioune mhm. ak ñi nga xamante ni mooy sëñ mbàkk yu fay Touba TV mhm. waa 2S yeneen chaîne yëpp ak DTV amul benn télévision boo xamante ni nekk na ci Sénégal fi mu ne nii te commission communication bi lëkkaloo ak yow tàmbalee jàppalante ak yow ba ci am na ñoo xam ne sax séq ak ñoom ay émission ci waajtaay wi kon noonu itam incha allah événement bu toll nii mhm. dimension internationale kon yaakaar naa ne buñ ci yeggee itam jël nañu matuwaay bu fu waaye mën a nekk incha allah mën ko seetaan ci li nga xamante ni mooy biir Sénégal ak euh, biti Sénégal dëgg la dëgg dégg la kon euh, mu nekk rek euh, ay tontu yoo xam ne si ñëw na rek ci laaj yooyu nga xam ne si jot na fee ruusandi euh, mën ngeen a wéyandi nag di continuer rek di yónnee seen i laaj ba tey dañuy jaajëfal rek Serigne Ablaye Diagne ci wax dëgg yàlla moom mi ñu teewal fa la nga xam ne si moo ci réseau sociaux yi muy Twitter muy Facebook. xaadimu rasulullah euh, bu ngeen ci duggee euh, ci Facebook wala Twitter ñaar yëpp bu mu ci mën di doon soo yónnee sa laaj rek euh, incha allah daañu ci jot bu fekkente ne say remerciement wala sant wala rafetlu émission bi boo ko dugalee rek incha allah daañu ci jot mbokk yi kon dañuy daal rek jàll nag ci beneen buntu bunt boobu mooy ban mooy buntu témoignage xam naa dañ ciy ànd rek ak waa régie ñu seetaan vidéo bi rek te ñëw daal di koy commenter. grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba. asalaamaaleykum mbokk julli di sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbokk yëpp nee na mi ngi ziyaare mbokk yépp nee mi ngi leen di yëgal ne mi ngi ci seen biir tey ak ëllëg nee mi ngi ñaan ci sëriñ Touba. bis bu ngeen di gisee ak Serigne Touba moom moom sëñ bi mu bokk ci mbooloo moom mu ngi leen di sant bu baax nee na lii ngeen nekk nag ku ci nekkul ku ne te newut te nekkul ci yéen di leen seet nekkul ci dara ndax sëriñ Touba de lii rekk la fi bàyyi woon liggéey ak jaamu yàlla. ak wéy ci ndigal xasidaam yi nag mu dajale mag ñi ñu di ko jàng waxtu nekk ci loolu rek ngeen nekk yéen ñi yéen yéen a ngi ciy jàng yéen a ngi koy bind yéen a ngi yar yéen a ngi liggéey tamit nee na lii dong mooy yoonu murit bu fekkoon yoon murit des na dara mooy yéen ñi ak li ngeen nekk nii nee na mi ngi leen di sant bu baax. nee na mi ngi leen di yaakaar. nee na moom taalibe sëñ Touba rek la. nee na gëmut lenn lu dul sëriñ Touba. nee na julleeg woor ak jàng lu ci ne dana ko def. waaye ak ngëmam. ak yaakaaram. ak féeteem. ak wóolu sëriñ Touba rek la ko def. nee na ko keneen. nee sëriñ Touba moom nag yàlla nañ ko mën a jàpp teñ xam nañ koy jàppe te ànd ak moom te wóolu ko te gëm ko loolu rekk mooy sunu yitte ñun nee na yéen ñii nag mu ngi leen di sant bu baax yéen waa Hizbut Tarqiyyah di leen gërëm nee na lii mu leen wax nag mu ngi ci seen biir fii ci àdduna ak fa jëm incha allah loolu lay ñaan sëriñ Touba. ndax lim gis ci yéen yoonu yàgg na lool waaye gone gu ndaw goo xam ne nii du dul jàng ak jàngale nekku ca boo doo fekk ab lam ci loxoom doo ko gis mukkit mu tëye loxoom jigéen ci yéen rekk la ko gis ci la des tamit nee na murid yi war nañ leen ceerooy roy bu baax a baax kon ndax loolu sëriñ bi li mu indi woon ci loolu la ko boole woon nit kuy jàng di jàngale di yar te jub tey jubale loolu nag yéen a ci yàlla na leen ci yàlla bàyyi te yàlla musal mu ci cat yàlla na ñu yàlla musal ci cat te boole ñoog Sëriñ Tuubaa fii ak fa ñu jëm su ngeen demee ci suñu aatu nee leen ko fu ngeen woote dina ñëw moom sëñ bas nee na fu ngeen woote dana ci ñëw ndax amut lenn lu dul sëriñ Tuubaa te te yéen ay taalibe sëñ Tuubaa ngeen te alali sëñ Tuubaa ngeen alali sëñ Tuubaa nag ku yaakaar sëñ Tuubaa fu mu woote nga wuy ji ko wërsëg wi gën a gaaw gën a lewet gën a sedd gën a barkeel mooy Serigne Touba nee na képp ku koy ñaanal moom sëñ Basiru na ko ñaanal mu bëgg Serigne Touba ndax sëñ tubaa dong nga fi nekk soo bëggee sëriñ Touba da nga gudd fan da am wërsëg da nga dem àjjana kon bëgg sëñ tubaa rek a wóor nañ bëgg sëriñ Touba te ñu xam niñ koy bëggee. xam nañ koy jàppe ngir sëriñ Touba kenn amu ko nañ ko jàpp ak suñ ñaari loxo jërë ngeen jëf jërëjëf euh, waa régie ci rek euh, wax dëgg yàlla vidéo bu am solo boobu nga xam ne si euh, nañ ko mu nekk am woote boo xam ne woote bu rëy la jóge euh, rek euh, ci Serigne Bass Baara ñu di ko sant bu baax di ko ziyaara Mbàkke Bàlla yàlla yàlla euh, suñu ñaanal ko suñu borom mu yàggal taxawaayam ba mu yàgg ñu rek jiite wax dëgg yàlla yàgg noo gindi it yàgg noo ñaanal wax ji wax wax wax ju am solo la joo xam ne si yaakaar naa Serigne Ablaye Diagne yow yaa yaa yaa fa teewoon yaa ñu doon taatanal ay kàddoom wax ji noo ko jàngatee yow waaw sëñ Mor Kébé <laughs> wax ji nag xam naa ni jàngat bi dama koy bàyyi ak sëñ Lamine waaye am naa précision bu ma ci bëgg a def xam nga euh, alxuraan li muy wax ne inna laaha laa yaxayru maa bi xawmin hattaa yaxayru maa bi suuf nee na suñu borom moom du soppi diggam ak jaam jaam bi rek koy soppi dafa bokk ci jikko yooyu ñoom ñoom bu ñu la xasee ba jàpp mhm. li tax ñu bàyyi la mhm. ci yow lay bàyyi ko waaye du bàyyi ko mu dajee tamit li wax naan les mêmes causes mhm. produisent toujours les mêmes effets science loolu la ñuy wax ndax dañ naan lampe daara Hizbut Tarqiyyah mbooloo mu te déggoo ci lu la naqari déggoo ci loo xam ne mën na gàkkal diine gàkkal yoonu murit ku ko jàpp da koy jàpp ak sa fukki loxo te euh, dafay nekk loo xam ne da yeesal ndax saa bu daara ji mosaan woote dafay ñëw wax na sax ci témoignage bi nee bàyyi na dem fépp foo xam ne dañ ko fay woo ndax li ñuy def di ko tuddee sëñ Touba. di ko tuddee yoonu diine di ko tuddee lu nekk ñu bari àdduna ak seen poste nee na bokk na ci li fi dese lu baax muy isbu tarxiya ba moo tax nee na ñetti fan yooyu ku ko fay fekk ku koy seet ak ku ko fay lépp lu waaye am bëgg ko ko jox mhm. nee na foofu koy fekk en attendant bàyyi la min di ñëwaat de fond <laughs> en attendant bàyyi la min di ñëw yow it li nga na solo loolu wax dëgg euh, euh, euh, gi li mu wax nii moom tamit wax dëgg yàlla ab soññee boo xam ne si taalibe bu nekk war na cee gis sa bopp ci biir jéem a nag soññaat sa bopp bu baax a baax dëgg la jërëjëf ñu koy sant bu baax a baax a baax Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Cheikh Mahamadou Lamine Bara mhm. di koo xam ne nag ku yàgg la ak isbu tarxiya te euh, li ci am solo rek mooy mm-hmm. euh, képp koo xamante ni mm-hmm. da bëgg Serigne Touba mm-hmm. alalam fu mu mën a ne daf lay ñor euh, te moom am na tawféex yi bokk ci ñi nga xamante ni wax na ni bi daara ji ñëw ci Serigne Abdou Lahad 1975 76 yàlla da ko boole mu am benn ci jataay yoo xamante ni fekkee na ko ci suñu borom itam dimbali ko lam ci jàppoon saa su nekk bu xëyee rek di ko gis mm-hmm. waaye muy kàddu yoo xam ne euh, xam nga ne bi ñu wootee liggéey yi mm-hmm. euh, Sëñ dafa jóg ànd ak comité d'organisation bi di comité de pilotage bi mm-hmm. ginnaaw bi ñu ci amee ndigalu Cheikh Sidi Muxtaar fépp foo xamante ni kenn ci njabootu Serigne Touba ma nga fa mu dem fa ñi nga xamante ni jot dina mu am ñoo xamante ni yabal na leen fa lii nag bokk na ci tànk nemmeeku yi nga xamante ni ñu ngi ko doon def Dakar ci moom waaye kàddu mi ngir ñu mën a góorgóorlu ay soññee la ngir ñu gën a mën a euh, tege ci yoon wi euh, lim ci wax itam bokk na ci liggéey soññee na ko jaamu yàlla wéy ci ndigal mm-hmm. ak yar mm-hmm. ak teggi loolu nag euh, ñuy sant yàlla suñu borom bi nga xamante ni mm-hmm. gis na ko fii ci isbu yi ñu xam ne kon loolu ab soññee la boo xam ne dina tax saa su nekk ñu gën a góorlu ci yoon wi te xam ne ñoom Sëriñ Tuubaa rek la ñuy jàppee nit li mu jàpp ci daara ji te gisuñu benn soppi ko am ci mooy dafa gis ne nañ jàppe woon Serigne Touba bu bisub tey day yokk waaye dara wàññi ñi ñaan suñu borom dimbali ñu loolu gën a sax loolu gën a sax ñu ko ñaan suñu borom am na ko te mën na ko mu mel ne it sama mbokk jigéen ñi soxna Awa yéen tamit vidéo bu doy waar bi nga xam ne si seetaan nañ ko wax yàlla muy témoignage bu am solo bi nga xam ne Serigne Bassirou Bara def na ko yow Awa yaak sa gan ñi tamit am na loo xam ne si war ngeen ko cee mën a dolli Euh, jërëjëf euh, Serigne euh, Modou kebe mhm. li nga xamante ni nag moom lañu seetaan léegi nii ci écran bi nekk na loo xamante ni vraiment mhm. neex na lool sedd na xol ku ne xam na ni sëñ Basirou Baara sëtu Serigne Touba la ku tedd kii nga xamante ni moom la ñu jagleel lii di grande journée culturelle Cheikh Ahmad Bamba gis ngeen ko mu wootee ni ndaje ya ku koy bu bësee jotee ku koy wër ku ne nag ko fekk foofa kon loolu yaakaar naa ne ak soññee la ndegam ñoom kilifa yi ñoo mën a jokk bàyyi seen yëpp ngir euh, euh, dem nag euh, fekkee ji loo xamante nii ne Serigne Touba lañ ko jagleel asantuma laak ñun taalibe yi nga xamante ni lu ñu Serigne Touba defal vraiment mënuñu ko fay Serigne Touba defal nañu loo xamante ni buñ ko doon sant ba àdduna tukki itamit mënuñu koo fay mu nekk loo xamante ni lu am solo la soxna Ami Diop seetaan nga vidéo bi la loo ci wax yooyu yëpp mu fi wax yëpp ay soññe la kon ñun nga xam ne dañoo nekk si yoon bi ñu gën a góor ndax nit bu nekkee si yoon jaadu na mu am kilifa goo xamante ne bii da dafa nekk ci am di ko soññ kon loolu day tax ne ci yoon mu gën a góorgóorlu xam fi muy teg tànkam kon sëñ bi ñu ngi koy ñaanal sunu borom kàttanal ko te may ko wér ba lim yéene liggéey sëñ Tuubaa mu def ci lu koy njortam ak njabootu sëñ Tuubaa gi ak taal bi yëpp dañu ànd kook moom soxna Awa ñu ngi lay. delloo kàddu gi eh, jërëjëf eh, soxna Ami am na solo li nga xamante nii ne eh, yëkkati ko soxna ndey Marème yow tamit seetaan nga kàddu yi Serigne Bassirou Bara mu wax lu am solo daal di soññ ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ngir ñu fekkee loolu nga xamante ni moo di mm-hmm. grande journée culturelle mm-hmm. dafa wax lu am solo dafa am solo waaye nag am lu ma ci gën a marqué mu ne ku koy ñaanal nga ñaanal ko mu bëgg Cheikhul Khadim mm-hmm. mu bëgg ñu xamaale ne bëgg Cheikhul Khadim sax farata la parce que Cheikh moo ko wax ku du mooy li xubbil yi faradan araahu nee mm. na sotti samay rangooñ ngir bëgg cheikhul xadim jeneen farata la xam xamante ne gis naa ko ci bokkut ak farata julee goor kon loolu moom a gën a ji ci li nga xamante ne wax na ko ba tey it mu wax ne ku koy seet na ko fekk dakaar mm. ni mu ko waxee noonu la ko Serigne Mountakha Mbacké waxee mm. kon liñ ciy jàngate rek mooy mën a mën a wóor dangay xaar ba ne la yow ah. mu mel ne fi mu jamono juñ toll nii wax dëgg yàlla istarxee ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax jaare ko ci Cheikhul Khadim waaw ñii lépp nag ñu koy sante Serigne Touba rek te xam ne nag lépp rek moom la léegi nag dañuy daal di jébbal kàddu gi Serigne Modou Kébé rek moom mu daal di wéyal waxtaan bi ak ay ganam jërëjëf soxna Awa kàddu yi am na solo loolu wax dëgg yàlla ni ñuy def rek mbokk yi dañuy daal di rek àndaat ak waa régie euh, indilaat leen beneen vidéo xam ngeen ne vidéo yi wax dëgg yàlla yi ñu leen tegal dafa am solo lool ndax wax ji nga xam ne moom la ci kilifa yi di wax euh, rek euh, moo am solo lool donc il faut ñu seetaan beneen vidéo ñu ànd ak waa régie dem ñëw nga xam ne moom la ñu nekkoon di di jàng ba pare jox suñu bopp Sëriñ Tuubaa dafa am firnde bu ñu ci dab 1980 Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw di gane si Cheikh Al eh, di ñëw di gane si Ndiouga Kébé daal naka mu tollook examen du mois de juin première session examen universitaire ñun ñëpp ñu bako fa nekk ci sëriñ bi maa ngi kii léegi ñu ngi ko daan teeroo yaa xayra di fi nataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tariban bila adadi toppe ko bi mu duggee ndakaaru bu mu egg Fann ñu bare jàngewuñu ñun demuñu fa lañ nekkoon di assurer tout la l'accueil tout la sécurité toute la restauration tout le programme waaye am bañ fa jógee gungewaat Cheikh Abdoul Ahad ba Touba Belel am ci ñun ñoo xam ni Serigne Cheikh Say dafa leen fa téye ba xaw tuuti examen mois d'octobre sax xam naa ni ñu bare dañ ko nekkatuñu woon ci gàmboop waaye am lu Serigne Touba def ci ñun mooy nangul ko ba noppi nangul suñu jamono jàpp naa ni kenn gënuwunu woon nangul Serigne Touba ci lu ñu mënoon ci lu ñu mënoon waaye itam njàng bi daan noon ko jox àqam ñoom xalaatee ñoom Ahmed Yane Doumbouya ak Saliou Mbuub mi aatu ba ba muy takk ay bagaasam boobu mi ngi dëkk HLM Fass def ko ci ay waxande lal yeeg kenn mënu la ko nettali loolu jébbal ko Cheikh Abdou ñëpp ay jàmba ci xale yu gën a féete ndaw ci ñun ñoom Youssou et cetera ñoom ñëpp vraiment ay jàmbaar la ci wàll woowu muy mbiru waajal ëllëg te waajal ëllëg boobu nag sëñ bi daf ñu ci daf ñu ci teg ci yoon. jërëjëf mbokk yi muy témoignage boo xam ne bu am solo la yaakaar naa xam ngeen ko maître Alioune Badara Cissé Euh, mu nekk rek euh, moom médiateur de la république euh, yaakaar naa xam ngeen ko bu baax baax ci li nga xam si mooy liggéey bu solo bi nga xam am solo bi nga xam si mi ngi koy def si gouvernement bi nga Serigne Ablaye Diagne nag si yëkkati na ko Serigne noo loo ñu mën a wax rek ci li nga xam si témoignage bi Alioune Badara Cissé def hmm. waaw sëñ Modou Kébé hmm. jërëjëf waa Régie ci vidéo boobu témoignage boobu Alioune hmm. Badara Cissé dafa doon tontu rek ci jaar bi mu jaar ci daara ji nan la leen façonné ay responsabilité ku ne xam na ni deuxième alternance ba mu amee Alioune Badara Cissé moo njëkk nekk ministre des affaires étrangères mmh. te yooyu bokk na ci poste yu ñuy wax poste de souveraineté affaires étrangères intérieur ak xeet yu demee mmh. président homme de confiance am la koy jox mmh. noonu loo laaj boobu looloo ko andiloon maanaam nan la seen jaar gi ñu jaar ci daara ji nu mu leen dimbalee ba mu jógee ci poste boobu toog na benn instant président woo ko de l'ouest médiateurs yi nga xam ne dañoo nekk Afrique sowu jant yëpp moom lañ jox seen kàddu pour quatre ans mu nekk ko moom it nee na jaar bi ñu jaar si daara ji daf leen mm-hmm. dimbali mm-hmm. ndax nee na Hizbut Tarqiyyah prototype bi muy formé mm-hmm. mooy li ci doon wax démb rek à tous les niveaux rek boo taxawee da xam ne yow produit fini nga produit fini nag moom da ñëw rek nga consommé amul loo ciy bàyyi nee na loolu nag dimbale leen bu baax a baax mu ngi wax sax euh, ni euh, Cheikh Abdoul Ahad daan na wax ni nee na daara ji na ngeen ko euh, seen jàngukaay yi na ko jàppee comme seen tool tool nag moom ku ci ne xam nga ni boo yaafusee li ngay bay du baax waaye nee na daara ji nekk seen barabu jaamukaay yàlla maanaam am jumtukaay boo xam di nga déggoog sa borom mm-hmm. nee loolu mooy nekkoon plus bi ñu amoon en tant que étudiant pëleeku ñeen étudiants yi ndax ñeen étudiants dañ daan def bu njàngee rek mm-hmm. dañ daan dem def yeneen yeneen yeneen activité ñi def sport ñi def yeneen activité ludique wala mais ñoom nag nee nañ seen activité phare buñ jàngaan ba pare mhm. mooy nekk ñu daan nekk ci daara mu ngi lay wax léegi mhm. ngan gu Saint gane woon Dakar nee na ñu ngi ko daan teertoo ay baytu yaa xayra day fin di wax loolu loolu di ko wax mhm. moo lay wan ni euh, nit ki am na fu mu jaar dañ ko modélé ndax Sëñ Tuubaa nag moom ni muy def ci nitam bu ci pareegul sax mënoo imaginer nit mën na mel noonu asmaang nag ci ko xamante ni si jàpp na ni am na fu mu jaar fu mel ni Hizbut Tarqiyyah ba nàmp ci extrait boobu ñu ngi actuel médiateur de la République bu Sénégal. dëgg la yow ñu lay sant bu baax a baax rek euh, sëriñ euh, Abdoulaye Diagne euh, ci extrait bu am solo boobu nga xam ne indil nga ñu ko sëriñ Lamine mu ne kaddu yi nga xam ne si moom la Maître Alioune Badara Cissé yëkkati ay kaddu la ñu fondé daara Hizbut nga xam ne si mooy membre yu njëkk yi waaye it wax ci li nga xam ne si rek moom la Serigne Touba def ci moom en tant que talibé ak en tant que koo xam ne si tey mu ngi toog di liggéey ci réew mi loo xam ne si ñëpp teg nañ ci seen bët dëgg la muy lu am solo sëñ Modou. Mhm. Euh, dafay wone rek euh, xereñuk sëñ Touba. bu wér ndax ku nekk xam na ni université de mhm. euh, nit baaxuwul woon di fa dem. di fonk sax diineem. wala cosaanam. wala aadaam waxumalaak nag. Mhm. mu fay fësal ak muritam di ak taalibeem suñu boroom itam def ñu dajeeg Cheikh Abdoul Ahad muy jëmm joo xam ne xam gu mu xam. li Serigne Touba waajal ci ndaw ñi mhm. am ci daara ji euh, cofeel mhm. ak xëcc leen ci boppam noo xam ne mhm. yéemu nañu bari yaakaar naa bërki démb seetaan nañu fi benn archive boo xam ne ah, ah, ah. Euh, taxul sax mu yàgg lool lool lool lool ndax ay 1987 la ak yooyu waaye da ngay gis tey lu mel ni màggal 18 safar li muy xat-xat ci tàkkusaan nga mën a ñëw agsi ci xalu daal di mu yaatal nga nuyoog moom loolu liggéey la bu am solo tey jii nag euh, day wone ni bi daara ji di soo a tàmbali mhm. euh, li Serigne tubaa def mhm. feeñal euh, leeram mhm. ci biir milieu boo xamante ni miin ñu fa woon loolu loolu nag tey soo xooloon keroog suñu Assane Mbuub directeur général am na yóbbante bu mu indi mu yóbbante si am communiqué bu mu def ci turu ñi nga xamante ne ay membre fondateur lañu ñu dem gis seen bopp ci lii ba fas yéene daje Euh, King Fahd Palace. Mhm. samedi ngir ko waat li nga xamante ni moo sos lii. Mhm. ak ni nga xamante ni lañ koy njukkalee. Mhm. lool tey fichier bi tey bu ñu ko bu ñu ko limoon. dina la yéem dina bari lool koo gis tey. muy ministre wala muy avocat. wala muy député wala muy koo xam ne. yor na ay responsabilité yu am njëriñ yu am solo fii ci réew mi te soo ñëwoon xool ci archive bu Hizbut Tarqiyyah ñu mën laa génneel carte de membre am ba muy nekk étudiant wala carte wala carte sympathisant am kon muy wane ni kon euh, mbooloo la moo xamante ni mhm. euh, li ñu jublu woon rek mooy euh, li sëñ bi waxoon rek mhm. sëñ Abdou Lahad li mu waxoon dafa tënk li sëñ Tuubaa wax mhm. muy liggéey ak jaamu yàlla ba noppi nag nga war a nekk étudiant topp sëriñ Tuubaa bëgg woon sa naataangoo yi nga nekkal ne leen man kat dofuma wala yaafuusuma wala du ma nit koo xam ne xaw ma li xew fi nga xam ne mooy nattukaay bi ngeen séq rek muy njàng mi doo ci bëgg a des ginnaaw benn yoon te euh, loolu nag moom bu dee positif ngay jàngee moom uh-huh. de bu ci ndimbal sëñ bi duggee uh-huh. de moom day daal di gaaw sotti loolu wallaay wallaay dëgg la dëgg la dëgg la euh, kon euh, mbokk yi ni ñuy def rek dañuy delluwaat régi régie daal di nag fas yéene dugal li nga xam ne si rek mooy archive dellu si ci beneen vidéo boo xam ne si moo xam naa mooy doon vidéo bu mujj ñu rek ñëw ci daal di koy commenté incha allah

grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba. grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf euh, waa régie euh, ni ma ko waxee woon rek euh, ñu ngi ci suñu émission bii di l'antenne quotidienne ba léegi fas yéene rek ñëw ci élément bi nga xam ne si moo mujj balaa ñuy tàggoo balaa ñuy yëkkati jataay bi di dalal rek kuréel gi nga xam ne si ñooy Mafatil Bichri ñu àndoon ak ñoom depuis ba émission bi commencé ba léegi dañuy dem régie rek seetaan dernière vidéo bi suñu paree di lu ci plateau bi commenté ko incha allah. vidéo bi euh, di ngeen ci xàmmee soxna may Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Khadim muy ñëw di siyaare si jumaa ji euh, ginnaaw bi itam mu tàbbi ci barabu Cheikhul Khadim lii nag di amoon ci weeru koor atum 1996 ginnaaw boo xamante ni euh, sëriñ bi jox na ndigal daara isbu tarixee boole leen ak soxna Maymunatu Mbàkke ngir ñu taxaw laytu xadr bi ndax laytu xadr xam ngeen ne daara waxaab la ko soxna si daan defee daara ji daan ànd ak moom ci jamono Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko fekk si ba ci jamono Serigne Abdoul Ahad bi ñu ko indee ci Touba muy dem nag di dem ba mbir mi yegg foo xamante ni euh, Serigne Saliou Mbacké la ci déggool xam ne nag bis bi àgg na foo xam ne faw ñu indi ko ci penc mi muy firndeel ne Serigne Touba nangul na ko Serigne Saliou Mbacké boole ko koog daara Hizbut Tarqiyyah nga xam ne saa bu weer wi teroo ba ñu jàpp bis bi rek euh, Serigne Atou di jëwriñu daara ji dina dem ci soxna si. ñu xam bis bi seet ni nga xam ne ni lañ koy doxalee loolu nag tàmbali ci wàllu togg yi tàmbali ci wàllu bernde yi waaye rawatina nag li nga xamante ni mooy su ba ñëwee taxawaay bi ñu am ci kër ga ak li nga xamante ni nag mooy jëmmi bis bi ci boppam muy euh, penc bi fi ñu ko daan defee. ginnaaw bi nga xamante ni kon ni ko soxna si baaxoo defee bi mu xëyee siyaar si Cheikh Saliou Mbacké gis ngeen ko muy dugg nii ci kër gi euh, bi mu euh, génnee ci fi nga xamante ni mooy barabu suñu mag bi ci jumaa ji. gis ngeen mu ànd ak jëwriñ daara ji fi mu ne nii nag génne na ci kër sëñ Saliou Mbacké war a wutal si nag fi nga xamante ni mooy penc mi ndax xam ngeen ni boobu leetu xadri gi ñi ngi koy defee ci wet gi nga xamante ni moo jàkkaarloo ak kër sëriñ Fallou Mbacké ci penc mi daara Hizbut Tarqiyyah nag di fa taxawal ay mbaar yoo xamante ni moom lañ daan def mu ci jumaa ji indi li nga xamante ni mooy kuréelu xasida bi indi itam ñi nga xamante ni maanaam mooy njàngum alxuraan ak durus bi boole ko li nga xamante ni mooy bernde yi ba bis bi euh, àgg soxna si nag dikk ak tànkam yu tedd yi euh, gis ngeen ko ni muy wax ak euh, ñooñu di ñi doon taxaw liggéey bi kooku di Serigne Modou Thiam Baye Fall nga xam ni moom la Serigne Atou féetale woon muy taxaw wàllu liggéey boobu soxna si moo dikkal boppam bu ci pénc mi gis liggéey bi dugg ci biir mbaar yi wone li nga xamante ni mooy mbégteem mu doon itam soññee bu am solo nag ci bi mu fi jógee ci murid saarix yi ñu gën a laxasaayu gën a euh, def pastéef ba liggéey bi àgg nii itam lañ ko doon àndeek moom diirub li nga xamante ni mi ngi def euh, laylatul xadar googu mu ci wane itam ak safoo ak mbégte lool bu ñuy ñëwee nag jàng ba fajar ñu dikk fi nga xamante ni mooy ci këru boppam gi ni nga xamante ni lañ ko defee ci pénc mi jàngal ko muwaaye bu naafi jàngal ko yeneen xasida mu ñaanal mbooloo mi wane mbégteem ñu yeewee ko ba déwéniti kon lii ay at la yoo xamante ni bi ko daara ji daan fekk daaru wahab ci jamono Cheikh Abdoulaat ba nii nga xamante ni indi na laytu xadar bi ci Touba di ko defee ci këram gi fii ci jumaa ji ñu nekk di ci ànd ak moom ba ni nga xamante ni la ko indi ci penc mi ci ndigalu Serigne Saliou Mbacke lépp itam daara Hizbut Tarqiyyah di ko ànd ak moom kon muy archive boo xam ne day fàttali rek loo xamante ni Euh, amoon na lu jege ñaar fukki at ci ginnaaw di loo xamante ni lu solo la. la loo xam ne lu am solo la nii rek lañ koy defee ci seen antenne quotidienne bés bu nekk daañu leen indil vidéo boo xam ne bu daw yaram euh, li nga xam ne si euh, mooy histoire ni ñu koy defee ba mu commencé ba léegi bés bu set ñu indil leen benn lañ koy jàppoon nag incha allah ba ba yegg rek ci li nga xam ne si mooy grande journée culturelle yi mbokk yi yegg si nañu nag daanaka fi nga xam ne rek fi la ñu war a yëkkatee jotaay bi sant bu baax Cheikh Mamadou Lamine Diouf ci contribution bu am solo bi nga xam ne si ak commentaire yu am xam si defal nañu ko waaye euh, di euh, rek euh, sant suñu gan gi xam naa dañ fiy jaare rek daal di koy yeewi soo ko mën a demaat fële ca plateau jigéen ñi dellu siwaat nag jox kuréel gi ñoom it ñu tëjal ñu sëriñ Babacar yan kàddu rek ngay tàggoo waaw sëñ Modou ñoo ngi siyaar bu baax di jégaloo bu baax baax a baax mm-hmm. di sant bu baax jotaay bi mm-hmm. ndax jotaay bi moom jotaayub sëriñ bi la jotaayub sëriñ bi nag lépp diine mu ngi ci jotaayub sëriñ bi ñuy fàttali suñ mbokki taalibe yi nga xam ne mm-hmm. ñoom la mel ni ñoom lañu toogal fii ci jotaay bi muy mbooreem kuréel yi nga xamante ni dañoo bokk nekk ñoom parcelle mhm. di yëngu ci sëriñ bi li ko dalee parcelle mhm. ak euh, Cambérène mhm. euh, mbooleem daara yi fa nekk yëpp ñu ngi leen di soññi di leen fàttali bis bi di sàkku ci ñoom ñëpp ñu bokk ànd waajal ko jàpp ne ñun ñi nga xamante ni yàlla suñu borom daa dogal ñu féetee sow jant dakaar ga ñuy defee bis bi maanaam mbooleem kuy ñëw ci bis bi rek ñun jàpp nañ ne ñun ñoo la war a dalal moo tax ñoom sëñ Matar Boy ñi nekk ci kër Soxna May ga sëñ Yankoba Fall ak mboolem mbokki daara daara yëpp ñu ngi leen di soññ bu baax parcelles yi tamit daara yi nooru nooru daara yi nekk euh, Cambérène 2 daara yi nga xamante ni ñoo bokk séq kuréelu xadaayidul fadaayil fédération bi mboolem daara yooyu yëpp mboole seen ñu ngi leen di soññ di sàkku ci ñoom ñu bokk ànd ak ñoom bés bi uh-huh. jàpp ne képp kuy ñëw ci bis bi daal ñun suñu gan nga ñun ñoo la war a dalal kon loolu ñu ngi ciy soññ ñëpp di sant tamit dama am loo tamit dama koy bëgg a fàttale di ko soññ ci seere ci mm-hmm. maanaam daara ji ndax mm-hmm. ñun mm-hmm. parcelle googu ñu dëkkoon mboolem liggéey suñ tubaab bu ñu fay def yàlla dimbali nañu kilifa yi fa nekk bàyyi sëriñ kan ma nga xam ne moo fay représenté sëñ bi soxna maam Assa ma nga xamante ni yàlla suñu borom dogal na mu ci këru dëgg xam-xam mboolem lu fa daan ñëw ci wàllu xéwal ñun ñoo ko doon taxawu ñoo ko daan togg ñoo ko daan taxawu ci kaw fañ daan séddale ñun ñoo ko daan def lépp moo tax jaxasoo gi xam nañ ko bu yàgg te it loolu dafa am solo ndax nit ki bu fekkee ne maanaam njabootu sëriñ tubaa gi nekk ci kaw suuf di liggéeyal sëriñ tubaa liggéey boo xam ne liggéey bu passif la bu tegu ci fa mu war a tegu nga ànd kook ñoom ba mbooleem lu diisoon ci moom oyof loolu liggéey maanaam Sëñ Tuubaa la moo tax daara ji àndoon nañu ak soxna si loolu xam nañ ko bu baax ci ñoom moo tax rafet rafetlu nañ liggéey bi lépp am na yu baree bari yoo xam ne ñun xam nañu ko ci liggéey bi ak seq kuñ seq ak waa daara ji waaye xëy na jotaay bi day gàtt waaye ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax di xam ne le maanaam li Sëriñ Saliou waxoon moom na ko ñëpp bàyyi xel sëriñ bi moom roy ko du lu mën a ñàkk ci képp koo xamante ni bëgg na sëriñ bi te muy dëgg ci yow uh-huh. maanaam mel ni moom nag faat na loolu uh-huh. yàlla faat na ko kenn mënul fexe ba mën koo roy ba mel ni moom uh-huh. waaye nag li mu wax mooy li wér roy ko dana tax nga raw sag maas xasida yi sëriñ bi nag mooy lépp sëriñ bi xasida yi li tax daara Hizbut Tarqiyyah képp koo xam ne bëgg ngaa jàng njàngum xasida jàng mu wér mënoo leen cee ñàkk loolu ni ko ñëpp <laughs> loolu yàlla dogal yàllaa ko dogal a royee gërëm bu di sant sëñ la mii nga

liggéey boobu dëgg la yooyu balaa ngaa dem ñoom ñu fexe am sa numéro téléphone ngeen échanger ay coordonnées ba liggéey bu ngeen di defati si rek ngeen woo leen ci yaatal lay doon waaye mbégte lay doon ci ñoom euh, kon mbokk yi dañuy daal di rek euh, dellu fële ci plateau jigéen yi euh, ma jox soxna Awa Sarr kàddu ngeen tàggoo ndax dañoo yegg fi nga xam ne fi lañu war a yëkkatee jotaay bi Euh, jërëjëf Serigne euh, Modou euh, Kébé laata nag ñu daal di yëkkati jataay bi rek dama daal di jox sama gan gi di soxna Ami Diop mu daal di wax nag kàddoom gu mujj bu amee nag message boo xam tamit yaa ngi koy lancé bu ko defee rek ñu daal di daal di tënk ñu daal di tàggatoo soxna Ami. Mm-hmm. mu jërëjëf soxna Ami Diop kàddu yi am na solo dañuy daal di jox soxna Ndeye Marème bu mm-hmm. ko defee moom tamit mu daal di eh, tàggoo laata rek ñuy yëkkati jataay bi mm-hmm. eh, jërëjëf waaw kontaan nañ trop waaye dañoo bëgg dugg ci arsif bi tuuti rek muy soxna Maymuna ñu daal di am mbégte bu baax a baax nag ci gis moom tamit ay image am tey jii waaye boo xoolee li ma ci gën a euh, remarqué rek mooy euh, euh, li nga xamante ni moom la solo ñu soxna Maymuna la ñuy waaye boo xoolee li mu solo daa jël kaala goo xamante ni boo xoolee war naa ma deux moom la sàngoo kon jigéen ñi ñu bàyyi wax xel bu baax a baax ñu xam ne doo may yaamal mi na solihaat mi sakkanen usa moo del suuf ku jëf lu baax immaa ngay góor immaa ngay jigéen borom moo tax eh, eh, a eh, indil ñu waxtaan bu am solo rawatina nag ci Serigne Touba ak ni nga xamante ni noonu la nekkee woon ci jamono ji di jaajëfal mbokk télé téléspectateurs yi nga xamante ni ne ñu ngi ñuy seetaan ci biir réew mi waaye itamit eh, ca eh, bitim réew di leen wax rek ne li duuf ci eh, nag bi li xajul ci cin bi Serigne Modou Kébé kon dañuy daal di tàggu ñi nga xamante ni ñooy mbokk spectateurs yi di leen jox rendez-vous demain incha allah même heure ci seen grande journée culturelle Cheikh Ahmad Bamba antenne quotidienne wax nga ko soxna Awa Sarr kon ba suba rek ak jàmm incha allah seen télévision Al Mouridiyyah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sarbi sanay ila taxi grande journée culturelle, cher Ahmadou Bamba.

Votre traditionnelle antenne hebdomadaire devient maintenant une antenne quotidienne. Ce sera donc tous les jours à partir de 22h sur votre télévision préférée Al Mouridia TV. xam ngeen ni ay bés yu néew moo des ci woote bu mag boobu jëm ci les grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xamante ni moo war a am ci Ndakaaru fukki fan ak juróom benn jàpp fukki fan ak juróom ñett ci weeru juillet atum 2016 seen télévision Al Mouridiyyah di leen indil antenne des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. maanaam seen jotaay ayu bés bi nga xamante ni moo nekkoon antenne hebdomadaire dafay ñëw ci antenne quotidienne maanaam jotaayu waxtaan la bu ngeen di am bés bu nekk bu 22h jotee maanaam fukki waxtu ci guddi. un plateau spécial dans lequel vous aurez des thématiques des invités de marque qui vont discuter de tout autour de ces grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba des kuréel seront invités en direct. pour vous gratifier d'un spectacle rythmé en son et en lumière. Vous aurez également d'une manière très régulière les activités qui se passent un peu partout au Sénégal et à l'étranger, mais également de la partie les activités au quotidien au niveau du King Fahd Palace, le somptueux hôtel de Dakar qui va recevoir la cérémonie d'ouverture inaugurale de ces grandes journées culturelles. Vous aurez également les événements au niveau du stade Demba Diop mais aussi de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Euh, ci seen jotaay boobu di antenne de grande journées culturelles euh, di ngeen ci am jotaay waxtaan yu am solo di ngeen ci am itam ay kuréelu xasaayid yoo nga xamante ni dinañ fi dalal ak ay jàngkatu rajas waaye itam di ngeen ci am ay xibaar yoo nga xamante ni mooy tukkee ca foofee nga xamante ni fa la conférence bi day amee tamit King Fahd Palace fa nga xamante ni fa la festival son et lumière bi di amee tamit stade Demba Diop ak ci université Cheikh Anta Diop.